ci ci jaamu yàlla la waaye fexeel ba dundal guddi gi waaye dundal ko ci ibaadaat moo tax sëñ Moussa ni guddi gu nekk am na ay xar yoo xam ni soo ko màggalee jot ak baaxam bis bu nekk wala jamono bu nekk am na ay xar ñu ko jagleel. bis bi ñuy waajal nag xar baax ko jagleel mooy ku ko fanaanee màggal ba asamaan set sa yaram aram maanaa nga set ay seddu ci ay bàkkaar kon loolu doy na sëkk wala jar na.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 moo ngi la Cheikh Moustapha doon wax sàng moo ngi la Cheikh Moustapha di wax magal gi ñoo yam li wax ne saa ba magal gi dikkee ku yàlla dogal amoo benn ngant nit amul yitte ju tee mu ma fanaan si Tuubaa bu dee nga gàllankoor dalaa téye ba mënoo ñëw soobal yoon ba jëm Touba dox ci ay jéego waaye fa nga nekk soo fas yéene yaa ngi biir Touba di def ni waa Touba di def nee day mel yaa ngi Touba.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 da nga fa am ak pay gu mat sëkk mu dal waxaat ni boo dee màggal guddi ngir buur yàlla su bët setee buur yàlla it jéggal la kon li ñu wax sànq ni mbir mu nekk saa boo ci bëggee jariñu da nga koy def ngir yàlla saa bu ci yàlla jiitoo rek lépp loo ci bëgg da nga kon dañ ciy déggawaat ni kuy màggal si pas bi rek mooy def ko ngir jimmi suñu borom wormal borom bis bi ak ndig lim ci joxe woon nee soo ko soo fanaanee màggal ni ñu ko santaanee